d'accord euh, sëriñ bi. Mhm. man moom li ma li ma gën a jaaxal rek man mooy yàqante bi koo xam ne defu la dara nekk ci yoonam di liggéey di avancé. xoolal xoolal ku bon kenn du ko yàq. ku kenn ko yàq. ku tekkiwul dara kenn du ko yàq. ku tekkiwul dara kenn du ko yàq maanaam ku féete ginnaaw kenn du ko yàq. ngaa gis ku amul dara ñu koy yàq. non damay laaj fii man may laaj. waaw non dama ne la amul benn mbindeef góor yàlla buy yeewoo ci kër amoo dara ñu lay liggéey amul. maanaam ku nekk ci yoon rek lañuy yàq. ku tekki dara rek lañuy ñuy yàq da ngay mën dara ñuy gor say tànk. dangay mën lu ñu mënul. wala ñu wa ilaa ñu xam ne yow biddiw bi dina fenk. ñu xool nuñ ko feyee. ok ah, looloo fi ne. dangay ngay nekk ak sa yaay ci biir kër mu nekk ak wu jëm. Mhm. wu jëm jur doom boo xamante ne leer na ko ne kii fu muy ba fu muy mujj nit lay doon. Mhm. mu leer ko ne ko moom bi mu jur. Mhm. ba fu muy mujj. du mënal boppam dara d'accord balaa looloo jóg nag mu jóg ca ci teel jóg pour fay loolu dégg naa la dégg naa la sëriñ dem bàyyi mhm. ñun la rek ñun la ci sunu biir bàyyi lu amul fii rek am na xolal lu fi manqué rek mhm. am na fu mu ne yow boo am na loo ne boo ko amul rek mu ngi fi dara génnul kër gi dal na jàmm eh, yaa ngi sëriñ bi yaa fi ba kañ ba soob borom bi maa daal yaa ngi fi ba mu soob borom bi rek nga dellu waaw waaw parce que fi may wax ak li tax ma la koy laaj mooy que ne mm-hmm. jàpp naa la mais du la bàyyi tey laa njëkk a déplacé wu ñëw séq ak yow waxtaan mais am na domaine yoo xam ne mënu ma fa dugg parce que am na loo xam ne maanaam du benn question ñaari question nga tontu ci noonu loolu dafay laaj émission spéciale boo xam ne mm-hmm. dañuy jël benn thème rek traité ko mm-hmm. jël benn sujet rek traité ko tey li ma indi ci question fii laa koy yemale euh, lan ngay tàggatoo ñi lay seetaan nañ bàyyi kiñaan gi ak soxor gi soxor iñaan nañ ko bàyyi soxor kiñaan parce que dund bi yàggul dund doomu aadama yàggul te kenn xamul suba ngay dee wala suba wala ginnaaw suba ba yow mi dem defi lu bon sax mhm. yaa ngi koy defi mais xamuloo ndax yow boo ko defee di tax dina nga mën a wëññeekuwaat sa këram déet parce que sa dund bi nekkul sa loxo bi mais des fois yàq rek lañ ci jublu maanaam ki yàq du question que ne bu yàqalee. waaye képp koo gis képp koo gis muy yàq dafa am lum sabab moo tax mu di ko yàq. te amaan na bu demoon ba yàq ko ba def ko sax amaan na mën na ko bañ amal benn njariñ ah, te lu bon tànk dalu la doo mën a xam li muy saf ci ci ci sa morom. Ah, ah. yabaate rek nag waaye fii koo fi jàppoon loxoom jël paaka jam mu xotti mu nàcc mu yuuxu. xam nañ ne lu métti neexut. mais bon rek. mais ñi ngeen di yaq yéen a bokk seen Adama ak Awa. kay bokk suñu Afrique bokk suñu Sénégal. buñ yalla xeyoon delo ku ci nekk fa nga joggé won billahi wallahi ta'ala ku nekk di nga jaar ci sa morom. kon dara jaru fi soxor. waaye lu ko jar dara jarul ñaaw bi aduna bi yagul bayval bi. Mm-hmm. lu graw la lay wax. billaahi maa lay xaalis jaru ko ak lu mu doon ñi nekk ci ñaan yàlla bi nañ ko nekk te ko ci siraatal mustaqim teg ko ci yoon lu ñu ci am ñu doyloo ko d'accord bàyyi business bi te ci yoon waaw mais business bi moom du affaire de Mara kese yéen journaliste yi mm-hmm. keneen ak keneen ak keneen ci domaine bu mu mën a nekk mm-hmm. business bi baaxu fi ku ku ciy liggéey teg ko ci yoon ku ciy liggéey ci fais le maximum quoi mais léegi àdduna dafa yàqu mm-hmm. tey am na ci journaliste yoo xam ne bu ñu xamoon ne bu ñu fi ñëwee am fi benn 500000 balaa jant bee soo ñu fees fi. ak moo leer fu ko teg xanaa tasaareetuñ njëriñ. loolu mooy mooy sunu mission. waaw yow. Mhm. loolooy sa mission. am na journaliste yu la ëpp doole foofu ci réew mi. ça lu tax defuñ li ngay def. à ah, sa façon. te ñu ci bari na xam nañ fi dëgg féetee. seen nafsu bakkan yi lañu topp waaye maa ngi ñëw ci yéen maa ngi ñëw ci yéen Serigne Demba Senghor mu ngi ñëw seen kaw. waaw maa ngi ñëw ci ñoom. loolu leer na waaw parce que affaire yi ñu leen di jox ñu koy def ci seen poos yi. Mhm. Mhm. am na clients yu wax ne Serigne si dañuy tappale mhm. mais am na journaliste aussi yuy wax ne Serigne si dañuy tappale et ñooñu di tappale et ñu ngi def xaalis ci poosu certains journalistes yi laa la wax voilà qui est est-ce que dégg nga ma dégg naa la waaye réew mi kumba mu am ndey moo fi am kumba am ndey kumba amul ndey mais li ma leen di wax daal il est temps que nit ñi mhm. ngeen def yëfi nit d'accord ngeen def li tax yàlla wàccee leen fi surtout xam ne puso bi su ma ko jamoon suma bopp du day metti du ma ko jam suma moroom jam sa morom ah dem leen gis sëriñ si ngeen xool li leen di jëmale kanam li leen di yokk li leen di may li leen di jëmale ci kanam ngeen avancé ak seen i njaboot su ñëpp defoon loolu kenn du dem ci sëriñ di ut musluwaay. waaye bu doon loolu dong la kuy tëdd tëdd tëdd ak sa musluwaay ayatul kursi wala moo xam faatiya wala leneen ak leneen sax boo ko jàngee yàlla mun na laa sàmm ba bërsët armeel yi ngeen suul jumaa yi ngeen suul te fu nit ñu baax ñi di daje rek lañuy suul et fu ñu teg loolu et duñu et duñu ruus suul ba suul fi ngeen war a tëddi xam ne tôt ou tard foofu sa ah. yaakaar ngeen toroxal yàq ko Hmm. ba mujj doon zéro. ku baayam yaakaar ngeen sonal ko. yàqal ko yoonam. et puis mon frère. Mhm. góor ñi takk jigéen ñi di leen toroxal ci biir kër yi nañ ko bàyyi. message solennel message a ngi ngir yàlla dimbale ma ci àdduna bi dégg loolu. Mhm. parce que boo nekkee sëriñ nga nga toog ci kër. Mhm. di nga xam liy dëgg waxuma nag. à temps pour défendre une femme ou bien autre on s'en fout mais damay wax li ma xam góor ñu bari takkatuñ jabar te yàlla tax dañuy takk jabar ndax weccit nañ bàyyi pratique yooyu nañ bàyyi pratique yooyu jabar ku koy takk danga koy bëgg nga takk ko ngir yàlla ak yonent bi nañ arrêté di takk jabar ndax alalu àdduna mhm. dañuy takk xale yi yaakaar ci ñoom koom-koom moo xam sëriñ leen ko wax wala leneen te xale bi ngay takk danga ko fekkoon mu nekkoon ci état bu rafet nga ko doon xëccoog say morom ay waajuram jël ko jox la ko après nga dem li nga bëggoon amuloo ko nga koy toroxal nit sax boo demee ba mënatoo yor da ngay bàyyi mais ñoom dañuy bëgg ngay dem manière yi ñu koy defee mooy loolu li may wax du leen neex yéen góor yàlla yi mm-hmm. mais man on s'en fout man ni ngeen may xaare ci lu bon noonu laa ko yàkkamtee. na jaamu yàgg. on s'en fout. na jaamu yàgg. Mhm. lu ñuy xaar ci man di ko mébér rek man xoolal pare naa loolu pare naa ba pare li ci ginnaaw loolu. yàllaay boroom jaam ñi. lijjantiwu leen sax. mais daal li may wax dinaa ko wax. Mhm. et que mooy tant que suma bakkan bi mu ngi respirer ci fii ci ci ci àdduna ah, bi je dis li may xam dama koy wax. ci dix que te li may wax ñi may wax xam nañ li ñuy def. li nga santé moom ay góor a ngi fii di yeewoo fii senegal sëy buñ takk bu ginnaaw subaa ñu tas ko dem uti beneen te defuñu ko dara lu dul toroxal jigéen ñi kese ak di leen ute alal. li may wax man xam naa ko bu baax mais nak, vous les femmes vous n'avez qu'à vous faire attention yéen jigéen ñi na ngeen def ndank. faire très attention ngeen bàyyi sen xel ci li ngeen di def parce que ñu bari jaamu yalla ci sey taxu leen jog. il fait que détruire les choses jaaduwul nak. te lu ngeen fi am kuñ leen fi jox rek amna kuñ ko xañ mm-hmm. Ah, ah, ça me fait mal, hein, Ça, ça me fait mal. Non, ça se comprend, ça se voit bien que ça Billahi wal kitabi, ça me fait mal. Mhm. da gis digen muise akiyau, ak yow. Mhm. mu xañ sax ki ko yomi jox la yow mi amul dara. Mhm. te mi am dara yow mi dem ba niveau boobu noonu da nga demoon ba benn jamono la takkal ki am na tey bi. laaj naa leen ko ana yàlla nga takk jigéen ay nga di ko toroxal. am na suñu ñoo xam ne dañ naan la kii am na wërsëg. nga takk ko nekk ak moom quelque temps li nga yaakaaroon gisoo ko wala li nga doon nga am di am ba mu yàgg mu leer ne la wërsëg bi gaan mu ngi nelaw. nga delluwaat ci sëriñ mu ne la kooku di xëy na wërsëg baa jeex. waaw mbokk internet yi gisal ngeen seen boobu de tey ñoo ngi woon fii ci eh, Dalifort ñëwoon seet si sëriñ Demba Senghor ku seetaan émission bi. di nga ci jëlee njariñ lu bari parce que gis ngeen ni eh, kilifa gi nit ku nit ku yéeme la nit ku bari kéemaan la nit ku bari xam-xam la euh, donc euh, numéro am dinaa ko publier dinaa publier numéro am ci suuf bu ko defee képp ku ko soxla mun nga ñëw déggante ak moom parce que mën naa ne ay njëriñ kese la kii di Serigne Demba Senghor moom lañ ñëwoon seet si tey fii ci Dalifort di leen jox dig daje ba beneen yoon rek ziar ziaraat jaa ngeen jëf sama gars yi